te dinaa génne dama leen doon xubb sax ma leen dinaa génne samay volontaire mm-hmm. mais génnewu ma volontaire uutuma gros bras ba ma fa yónnee les service techniques de la ville ay gros bras lañ fa fekk ñu tere leen du ngeen dugg ci site bi xam nga mënoon naa xeex mm-hmm. indi volontaire volontaire sax ñëw nañ mais dama leen dem leen ngeen sécuriser mm-hmm. à un moment bi descos des cos dafa wax waa police bi dem leen bëgguñu attroupement bëgguñu loolu